yu nu tëralal ay yëf yoo xam ne luñ gis ne du noonu ñu jóg ca léeg-léeg président ñëw ne leen damaa xalaate def nangam député na ko waaw mbaa ñu ko déet rikk waay bu leen doon député yoo xam ne dangeen di ànd ak état bu lu ñëw rek ngeen na jàll bu leen doon yooyu Hadj Abdoul Aziz moo leen ko doon tere yéen ñi opposé bu leen ne opposé nañ état bu lum indi ngeen ne déedéet loolu Abdoul Aziz sa Hadj Abdoul moo ko doon tere na ngeen yëg ne député bu laxasee tànn réew mépp tànn la ci liste nga jaar pour dem mooy esel bi nga jaar moom list bi waaye nag bul jàpp ne baa la fa yóbbu nga doon koy opposé ba lu ñëw rek nga ne baaxul déedéet yéen itam bu leen wax ne dañoo ànd ak état ba lu ñu indi rek ñu ne baax na déedéet buñ leen indilee lu ñu war a wate Abdul Aziz nee na radiyallaahu anhu seet leen lu mu leen di jural seen digganteeg peuple bi waaw seet leen lu mu leen di jural seen digganteeg peuple bi tey bu président indi woon ab loi daat na day tere sol gërambu bu Sénégal ah seet leen ba xam lu mu leen di jëlal suñ diggante ak bu nu teree gërambu bu fun jëm waaw kon da ngeen di seet lu mu leen di jural digg seen digganteeg peuple bi bu ngeen noppee seet lu mu leen di jëlal seen digganteeg président mi indi loi bi ndax ngeen wate ko moo gën ci moom wala ngeen bañ ko wate moo gën ci moom ñu opposé bu leen wax ne lu fi ñëw tam indi ko rek ñu opposé ko ndax baaxul bu leen def noonu yéen tam ndax député kat kenn nekku ko walla kenn doonu ko da ngeen koo nekk kenn doonu ko da ngeen nekk léegi te nga dégg ex député liste yi walla ñu ñu wateel gisuma ci gisuma ci Moustapha Cissé Lo gisuma ko ca liste ya dégguma ko assemblée kon ex lay doon ak ñeneen ñu mel ni moom mbokk yi di jot na 88 ngeen di woote 628